eh Baye Talla Talla maa ngi lay bëggee ça va naka mbir yi mbaa lépp jàmm soxna Ndey Kumba Diop ça va bien Cheikh Amar Cheikh bëgg naa la naka affaire yi ñu ngi ziar bu baax Paco ça ñu ngi leen di bëggee bu baax baax waaw sama tooma Assane Diagne maa leen di ziar waay waaye benn vidéo bu ndaw rek laa bëgga a def bu gàtt rek ci pharmacie Guigo ndaxte ku ci nekk gis na euh, note de service bi ñu def ba dàq ñaari sénégalais yi doon julli foofu kenn ki jurbel waa la jurbel gii la dëkk Abdou Cissé maa lay bëggee bu baax naka taw feexi as saliha mubarak bëgg naa la waaye ziar naa leen waaye waaye pharmacie Guigon Bernard Guigon moom li mu nekkee dafa dafa ëpp ah Bernard Guigon nit ñi war a nañoo wax ak moom de Abdou Cissé xam ngeen lu mu wax ci note de service bi pratique gu julli nee na julli dafa dangereux par rapport ak liggéey bi nga xamante ne bi moom la ñuy def ci wàllu pharmacie Bernard Guigon loolu la wax nee julli dafa dangereux est-ce que yéen mën ngeen comprendre ab étranger bu jóge bitim réew ñëw ci seen réew baayam wala ay maamam yi moo moon moo moon pharmacie Guigon ña fa nekkoon doon fa liggéey daan julli nga xëy xëy xëy nga ne leen fii léegi kenn dootu fi jullee Basiru Basiru Dieng bëgg naa la Xaadim Xaadim ça bi bien maa leen di ziar bu baax a baax comment se fait-il que pharmacie Guigon Bernard Guigon am sañ-sañu taxaw ne senegal yi nekk foofu daan julli mu ne leen léegi dootu leen julli léegi ku julli ma dàq la ah non non waxuma la seen waxuma la seen bàyyi ak seen yëf Abdou Cissé waruñu leen a bàyyi ak seen yëf gis nga Europe am na njikko yu mel nii boo fa amee dañ lay expulsé man li je je demande à ko que Bernard Guégon ci boppam ñu nangu pharmacie bi génn ko réew mi loolu mooy yoon kii fi nekk nag du ko def ndax njiit la boo xam ne lépp lu am ci réew mi ci lu baax jox na ko tubaab bi kon Bernard Guégon mën naa ne bu ko neexee lu ko neex mu def ndax kii moo ko may doole mais may giñ may doole étranger yi ci Sénégal ba ñuy def loon sénégalais yi jëfi jaam yu nekk moo pour pourquoi ñu jox doole ay étranger ñun buñ nekkee bitim réew ñun lu bari sañu ñu ko bitim réew loo fa def ñu dàq la loo fa def ñu ne dañ lay expulser ndax étranger nga loo fa def ñu ne tu un étranger tu ne dois ça waa léegi ñu bàyyi ñun ay étranger ay français ñu ñëw di ñu imposer seen ay loi pourquoi suñu code du travail ñun Sénégal lu tax suñ code du travail ñun Sénégal mënuñ ci def ne ah ginnaaw heure julli yi 14 heures dong la lu ci ëpp ak 17 heures lu tax ñaari heure yooyu mënuñu ko cee def di 10 minutes julli gu ci nekk cinq minutes la ñu des ko ci code du travail bi ba entreprise buy jël nit am am nit kooku am na sañ-sañu am cinq minutes pour julli ji bitim réew du boo fay liggéey chaque 2 heures de temps am nga 5 minutes pour tux bitim réew laa leen wax li ma leen wax lu leer la man liggéey naa fa. contrat bi bitim réew chaque chaque chaque deux heures de temps saa boo liggéeyee deux heures de temps am nga droit génn tux benn cigarette permettre nañ la ko en Europe waa léegi ñun kenn permettre ñu julli suñuy waxtu yu juróom mais gars ñi pourquoi ñun one one on est on est aussi aussi xawma ay con lañu xawma ñun ñun ñu nu jiite xawma lan lañ bëggal seen askan yi mbokk yi. ñi nu jiite Macky Sall lan la bëggal Sénégal laa wax Macky Sall ci boppam lan la bëggal Sénégal man j'aimerais bien ko vraiment nekk tuuti ci boppam mu wax ñu lan la Macky Sall bëggal Sénégal. dama ne leen je répète encore une fois maa leen ko wax Assane Sylla moo leen ko wax bitim réew saa boo liggéeyee deux heures de temps ci huit heures de temps yi am nga droit génn tux benn cigarette cinq minutes dix minutes. waa léegi nga am droit ci huit heures de temps yi génn quatre fois pour tux cigarette. te yow ñu waa ab tubaab ñëw ne la fii bitim réew ne la fii ci sama réew doo fi jullee cinq minutes ay Sénégal nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi tamit li ñu leen di wax tamit dooy dooy waxantu ñun tamit waxuñu leen inventé wuñ li leen di wax suñu code du travail dañ ko war a changer ba nga xamante ne bii képp koo xamante ne bii travailleur nga am nga droit julli sa ña sa sa cinq minutes wala sa dix minutes bu fekkee tisbaar la ak tàkkusaan ñu def ko ci code du travail ba nga xamante ne bi su fekkee da nga koo leb sax boo heure wàcc jotee boo waroon a wàcc 19h nga wàcc 19h20 wala nga wàcc 19h30 loolu mooy mbir mi loolu mooy mbir mi gaañ yi jàllal leen leen ma message bi s'il ngir sénégalais yi xam ne il faut que njiit yi tamit ñoom it vraiment vraiment ñu ñu bàyyi xel seen askan bi te bañ a topp rek tubaab bi lim leen di teg. tubaab bi lim ñuy teg fii nanguwu ko dëkkam man maa leen ko wax je répète encore une fois bitim réew chaque deux heures de temps yoo liggéey Espagne nga ma ne woon chaque deux heures de temps yoo liggéey am nga droit génn nga tux cigarette cinq minutes am nga droit bi maa ko wax te kenn du ko dindi waa léegi ñii di liggéey ci pharmacie seen heure julli jot waay waay julli cinq minutes dellu soir continuer seen liggéey pharmacie Guigon Bernard Guigon dàq leen ci ngir loolu pourquoi Bernard Guigon di leen dàq parce que nee na way code du travail ba wax loolu code du travail bi nañ ko adapté solo nos réalité ziar naa leen yéen ñëpp aji Abiba ma sœur maa ngi lay bëggee ah way Mor Gueye Mor heure julli yi bu ngeen xoolee souvent 14 heures la ak 17 heures heure boobu mooy mooy fekk nit souvent ci heure liggéeyukaayam lu ci bëri mais 14 heures ak 17 heures ñaari heure prière yooyu bu ci nekk du passé laa la wax ni 5 minutes 7 minutes mais 15 minutes boo ko mayee nit ki bu waree wàcc mu mu dolli ko si wala mu jiitoo ko bu waree dugg 7 mu dugg 6 quarante cinq pour bu heure julli jotee mu julli wala bu fekkee dafa war a war a bu wàcc 19 heures mu wàcc 19 heures et quart wala 19 heures 20 pour fay 10 minutes yooyu mu jëloon ci heure julli yi mais loolu dañ koo war a def loolu dañ ko war a def ci suñu code du travail inspection du travail ak le code du travail dañ cee war a def ne Sénégal dëkku jullit la c'est pas ce petit Bernard la ce vaurien de Bernard ah moom mooy ñëw di dàq nit ñi di ñu imposer ces lois ci pharmacien ba pare nekk ci suñu réew xam nga li ñuy wax a ngi nii ragal ak tappet ak ñàkk fayda mënta paase ab étranger ñëw ci sa dëkk yoru fi lu dul ab pharmacie di la fontoo nan la fii doo fi jullee ah suñ réew mi Macky Sall da ko yàq yàq yàqa yàq ba nas étranger yi sax ñu fi ëpp droit Macky Sall dafa jaay suñ réew mi joxe ko joxe joxe joxe ba étranger yi ñoo ñu ëpp droit fii ci suñu réew mi qu'est-ce que cela veut dire ñoom ñooy ñan les étrangers ba fii Sonatel Total la léegi Orange Money xool leen li ñu defal Orange Money orange money banque boo dugg orange money la xaalis orange money loo fi yónnee transfert d' argent yi bénéfice bi yépp orange money mi ngi koy yóbbu xool leen Sonatel xool leen Suez SDE ndoxum Sénégal mi sax français koy gérer ndox mi nii naan xool leen terre bi ah xool leen Alstom xool leen Eiffage xool leen Bolloré Macky Sall réew mi mépp jaay na ko France ndax mbokk yi lii dafa ëpp léegi nag El Colmo comme ni ñu koy waxee ci espagnol el colmo mooy un petit bernard un vaurien de bernard moom pharmacie Guigon tax na nga ñëw fekk ay nit ñuy ñu ñoo xam ne ay liggéeykat lañu ay docteur lañu ñu jub nit ñu baax heure julli jot juróomi minutes yi nu war a julli jee nga ne doo leen ko may te boo demee France am nga droit tux 5 minutes maa leen ko wax boo demee France am nga droit tux 5 minutes te amuloo droit julli 5 minutes fii ci Sénégal tant que Macky Sall mi ngi fi suñ senegal gii danañ torox dan bala moo dem dana rey réew mi yàq réew mi jaay ko yéen ñi nekk France yéen ñëpp Espagne Italie am ngeen droit ci seeni entreprise kero fumaar boo liggéeyee deux heures de temps nga génn nga tux cinq minutes ñu ne la fii jur fii fii doo fi jullee ah jël français yi di leen dooleel au détriment de joni joni ak ak wari war wari ab sénégalais moo ko moom Kabiru Mbodj jooni jooni Bougane Gueye Dany moo ko moom dimbale woo ñaari entreprise sénégalaise yooyu pour ñu jóg soqaliku nga jàpp Orange Money di ko dimbale di ko dimbale di ko dimbale ba Orange Money banque yi ci Sénégal gépp li am njariñ ci Sénégal gépp Orange moo Money moo ko jël ah di daaneel wari di daaneel jooni jooni ba mi ngi nii presque Bougane entreprise am yëpp mënatul dem xoolal xool leen boobu façon njiit bi nga xamante ne bi yow intérêt étranger yi moo la gënal sa intérêt yi waa dëkk njiit bii ñu yor laa wax Macky Sall intérêt yi étranger yi moo ko gënal intérêt yi waa dëkkam loolu nag jëf bon la jëfin yu ñaaw la yu jara ñaawlu yu mat ñaaw ñaawlu parce que dafa mel ni ñun dañoo yaakaar ne ñun nekkuñu bitim réew ñun dañoo nekk bitim réew liggéey fa dem ci continant yi ba li dellu si toog lu fa xew rek xam nañ ko lu fa xew rek xam nañ ko et puis muy bind note de service naan pratique yooyu maanaam julli c'est dangereux nee na dangereusement dangereusement ça porte atteinte euh, dangereusement à la bonne marche de la pharmacie maa ngi interpellé nag la docteur Amath Niang yaay le président de l'ordre de pharmaciens di doomu Diourbel pharmacie gi goog ñooñu ñu ñu dàq ay doomu jur am na doomu Diourbel bu ci bokk yow Amath Niang le président de l'ordre des pharmaciens du Sénégal doomu Diourbel nga pharmacie Guigon Bernard Guigon moomu ñaar ñi mu dàq kenn ki doomu Jurbel la damay ñaan yow la docteur Amath Niang ngeen dem ngeen waxtaan ak Bernard Guigon moomu doomu senegal yooyu ñu dàq ak doomu Jurbel yooyu ñu jëlaat leen deuxièmement seen loi yooyu ñu jël ko sànni fële oui ñu jël ko sànni fële voilà abi abi oui nañ ko répartir sax nañ leen wax ne d'accord da ngeen di julli ji léegi nañu répartir seen heure julli yooyu ci heure pause bi léegi heure pause bi bu la neexee ngeen dem julli ji mais dañ koy dindi ci seen heure pause kon sax ñoom ñu nangu ko kon sax ñoom ñu nangu ko ah mais comment se fait Sénégal li fi xew lépp di fi xew bés bu set ci góor jigéen ñi ñuy bon di yàq réew mi di tas réew mi nit ñi croiser les bras ñu leen di wax nit ñi croiser les bras comment se fait-il que un petit Bernard ñëw di fontoo nit ñi waaye nag waaja waxoon na leen ko de référendum bii bu ngeen ko voté di ngeen ne wooy te wooy yooyu moo ci tege waa ji waxoon na leen ko waxoon na leen ko de borom bi mi ngi ci ruqam toog waxoon na leen ko neewoon na leen bés boo leen voté loi bi ci référendum bii di ngeen ne wooy te wooy wóoyaay yooyu ci topp ñu ngi naan wóoyaay yooyu nag te mënu leen ci dara alali Sénégal dooley réew mi jël nañ ko tasaare ko joxe ko nasaraan bi français bi ba léegi ñu ngi ñuy imposer léegi nag. fi mu toll nii balaa Macky Sall dem mille 2024 dina am ay mbedd yoo xam ne ci ndakaaru dañ naan la fii mbeddi tubaab bi la bul fi jaar looloo ci des nag looloo ci des de <laughs> Ibra Ibu <laughs> Ibu xam nga lu ci des dans 4 ans dans 5 ans dans 4 ans dans 5 ans nga war a jaar ci benn rue. Lamine Gueye boobu boo moytu léegi tey waa pharmacie Gingo baare ko ne leen du ngeen fi jaarati léegi pharmacie Gingo ñoo ko jënd ñoo ko moom oui loolu lañ lay wax parce que y a du laisser aller Macky Sall fait du n'importe quoi dans ce pays bàyyi étranger yi ñuy def lu leen neex di ñu toroxal vraiment nag wax dëgg yàlla lii war nañ ko moytu wax dëgg yàlla lii ñaaw na trop waaw maa ngi interpellé nag la président de l'ordre des pharmaciens Amath Niang maa ngi interpellé l'état du Sénégal maa ngi interpellé imam yi yéen ñu ci diine yi jóg leen ngeen xeex lii buñ ko bàyyee mu continuer dinañ dem ba ñu bëgg a ñun suñu Sénégal gi bëgg fi dara ab nasaraan ñëw nañu lii du fi amee maa moom fii Sénégal nag dëkku jom la am nañ ay kilifa yoo xam ne wan nañu exemple waaw sëñ Touba julli da koo jaraloon mu dugg mu mu cëppeelu ci géej julli ngir bañ a wàcc rek ndigali suñu borom yi julli da koo jaraloon mu cëppeelu ci ndox ngir julli kon ay ñaari doomi sénégalais julli jaral leen loolu ñu leen di dàq képp kuy ilimaan képp kuy nitu diine fii ci senegal war nga jóg nga xeex ngir inspection du travail delloo si ñoo ñu seen liggéey wala pharmacie gi boobu ñu tëj ko Bernard moomu ñu dàq ko war nañ ñoo wax lan moo waral pharmacie gi ko garab bu manqué ci Sénégal pharmacie gi ko dong la war a am warta am feneen lan moo waral pharmacie gi ko garab bu manqué ci Sénégal yow amaat Niang vraiment grand sama grand nga sama xarit nga dañuy waxtaan maa ngi lay laaj en tant que président de l'ordre des pharmaciens lan moo waral garab gu manqué ci Sénégal pharmacie gi ko dong nga ko mën a amee ñoo yor monopole garab gi ci Sénégal pourquoi ça vraiment y a beaucoup de questions à se poser dans ce il bokk bokk bokk def question de questions à se dans ce pays ñii ñuy jiite lan lañ ñuy jiitee ak lan moo waral ñu war ñoo mën a jiite nii lan moo waral ñuy toroxal seen askan nii lan moo waral Macky Sall di toroxal Sénégal nii lan la ko Sénégal def lu war a mën a tax Macky Sall di ñu toroxal nii lan yow may nañ la lépp defal nañ la juróom-ñaari at jox la deuxième mandat lan moo waral toroxtaange sénégalais yi di ko dund Macky Sall di seetaan comme du je m'en alors que jox nañ la milliards yu ne jox nañ la xaalis bu ne bu set quarante mille nga koy quarante millions nga koy dépensé par jour. presque dépensé quarante million par jour moom la Macky Sall di dépensé jox la avion Sénégal jox la carburant jox la lépp sàmm la sàmm sa njaboot jël ay milliards jox la ne la yàqal te kenn du la ci laaj dara jël réew mi fal la juróom-ñaari at falaat la yeneen juróomi ngay seetaan ñuy toroxal sénégalais yi nii Macky Sall bu ko àqu sénégalais yi dalee du baax ci moom de Macky Sall bu ko àqu Sénégal dalee du baax ci moom lii rek laa jugoon pour wax maa ngi leen di tuubal di jéglu di ñaan ngeen jàllale leen ñu message bi pour waa àddina bi xam ne pharmacie Guigo dàq nañ ñaari sénégalais ngir juróomi minutes yuñ julli alors que bitim réew chaque deux heures de temps am nga génn droit tux ci sa entreprise entreprise bitim réew chaque deux heures de temps am nga droit génn tux ñun Sénégal ñu dàq suñuy ay nit ngir juróomi minute yu ñu génn julli gaa yi réfléchir leen gaa ñi gaa ñi réfléchir leen gaa ñi lii ñuy seetaan ëpp na lii sénégalais yi di seetaan ëpp na waaw jërëjëf jërëjëf one love ba fan yi ci kàttanu sunu borom.